waaw maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp euh, di remercier encore ci question bi nga posé ñun dañuy doomu Mbàkke yàlla sutural ñu may ñu xam-xam nim ñu mayee xam-xam noonu la mayee xam-xam ñeneen ñi noonu la mayee am-am ñeneen ñi noonu la mayee doole ñeneen ñi ñu war a mën toog ñun suñ dëkk bi toll nii ñu ne loolu du yoon parce que dañ am benn modèle bu ñu won naka la ñuy liggéey naka la ñuy defaree dëkk. ma rappelé léegi ne euh, euh, jumaa ju mag yi biñ koy dafax 1924 murid yi fa nekkoon matuñu woon 200000 te dajale nañ 5 millions pour tàmbale travaux yi ba 63 ñu koy inauguré barki démboo Ndiaye ma ne leen ah murid yi dajale nañ loxo kenn dugg si loxo taalibe kese la ñu dajale tey ba tabax mosquée Massalikul Jinaan ma ne ñun loolu la ñu war a basé wu tey pour defar Mbàkke mais mënuñ ko defar tant que ñoo ngi féewaloo il faut que mu doon projet boo xam ne ñun dañ koy projet dañ koy porter woo si nit ñi tijji suñ xol tijji suñuy loxo ne leen kaay leen ñu ensemble ñu liggéey dëkk bi. anam ñu koy defee mooy tey soo xoolee Mbàkke yëpp a ngi am ay mouvement Mbàkke yëpp a ngi am ay association maanaam nit ñi tey yeewu nañ xam nañ ne ñoom ñoo war a jógal liggéey seen bopp léegi nekkatul ay spectateur nit ñee acteur lañ. intérêt mbëkk dëkk bi moo ñu intéressé et on a dit toujours c' est général moo ñu yëkkati c' est pas des intérêts individuels su fekkee loolu la xëy na ku nekk dem na toog këram mais intérêt général lu dëkk bi moo ñu tax moo tax ba ñuy def action yi ñuy def tey di si dugal suñ xaalis ñeneen yi di ñuy jàppale di si dugal seen am ñeneen ñi di ñuy di si dugal seen xam-xam moo tax ñuy yëngatu ci lool ñun ñëpp fi lañ nekk am ku ñu jiite muy président Macky Sall mu lancé benn projet. waruñu jiitu ci projet boobu damay rappeler bi ñuy gën a nekk ndaw suñu yeewoo même xale yi jàng yi jigéen ñi dañuy yeewu bale seen buntu kër. donc nañ ko tàmbalee ci lool na ku nekk ci ñun engagé wu bañ tilimal dëkk bi bañ a sànni ay salté ci dëkk bi bañ a sànni ay déchets ci dëkk bi nañ tàmbalee ci lool ba suñ ko tàmbalee léegi dëkk bi set. d'accord une très belle soirée. vraiment une très belle soirée ça m'a permis quand même euh, sama mag yu bëri yu ma gëjoon gis ça m'a permis aussi de voir les artistes de Mbacké parce que ñi fi produire ça montre que Mbacké encore a de la crème vraiment c'est une très belle fête voilà